démb bi doon amal ab réunion bu secrétaire exécutif bu alliance euh, pour la république di APR ay militant wu njiitu réew mi nag euh, ñoom daal euh, dañ ko laaj di sàkku ci moom ngir mu samp ndëndëm ngir daal beneenu manda ci boppu réew mi wante nag njiitu réew mi moom daal li nga xam ne daal taxawaay ba mu daal ci question troisième manda boobu ba léegi daal moom am nee na tontu ca ci jamono joo xam ne nag ñu ngi waajal coupe bi monde bu football ñu ne nag euh, waa fédération sénégalaise de football lëkkaloog douane ñoom daal dañoo tere euh, li nga xam ne moom mooy ay maillot yu national nationale ñu indi ko fii ci Sénégal wala sax euh, di ko fi jaay loolu nag ñu ngi ko xamal ñoom ñooy ay commercant yu nekk fële ci ak ca Colobane ñoom nag nee nañ li ni mel daf leen bett ndax sax ñoom dañ doon faral occasion yi. di ci indima yooyu te di ko fi jaay ñu ne nag buñ toogee ba léegi ni si nga xam ne ñoom ñooy kon waa fédération ba ak douane bëgg leen tere li ni mel ñu ne loolu kon daal lu leen euh, bett la te sax dañoo gis ne mbirum jaay doole mbirum jaay doole la ba tax kon ñu ne dinañu amal ab point de presse ngir daal kon euh, artu ki nga xam ne euh, moom mooy njiitu réew mi. am na nag euh, mbir mu bees ci euh, xale bu jigéen boobu nga xam ne dañoo fekkoon mu faatu ci àllub Ndiokel nekk fële ca euh, Kaolack moom nag toll ci 17 ans xam ngeen ne dañ ko fekkoon mu faatu ci àll boobu ci diggante dëkk bi di jom xel ak Ndiokel Pël moom nag fi mu nekk nii identifié nañ ko sax ñu ne Fatou Samb la tudd te sax élément yu njëkk yu enquête bi daa wane ne daal dañ ko métital sàkk ko ba pare sax door ko faat xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek euh, euh, juróom ci ay congolais yoo xam ne nag euh, bésub tey bii fële ca Kinshasa ubbi dañ fa seenu procès gannaaw bi nga xam ne nag dañ leen di jiiñ faatuk ambassadeur Italie bu RDC di Luca Attanasio te faatoon ko ci atum deux mille vingt et te dooroon ko balu fetal ñoom nag loolu ñu leen di jiiñ sax dañ ko weddi ne ñoom. ca Tanzanie nag eh, njiitu réew ma di Samia Suluhu Hassan moom nag day woo mbokk jigéenam ya ngir daal ñu mën a wàññi eh, jur gi eh, te sax def li nga xam ne moom mooy planning familial ndax nag dafa gis ne daal la ñuy daal daa bëri kon te sax dañuy ragal kon nitee daal bëri ba sax lañu am réew ma kon du leen mën a dundal bu ñu sukkandikoo nag ci waa banque mondiale Tanzanie bokk na ci réew yi nga xam ne seen taux de natalité moom moo gën bëri ci Afrique de l'Est dañ koy jeexal xibaaru bitim réew ak njiitalu Russie di Vladimir Poutine moom nag bésu bu tey bii daal amal na li nga naan loi martiale foofale ci ay territoire ukrainien yoo xam ne kon Russie da caa teg loxo muy Donetsk Lugansk Kherson ak Zaporijia yi nga xam ne sax ñoom teg nañ ci loxo euh, ci mois de septembre bi loi martiale nag moom day tax ba euh, moom moomule Vladimir Poutine mu mën a jël ay dogal yoo xam ne daal da koy amal ci yooyu le territoire te sax du ci saafonteeg kenn lii lañ loolu tey ci ay xibaar rafet seen teewlu li ñu tax daje ëllëg